ma feddliwaat ko fii man maa proposé président Diomaye Sénégal yi Sénégalais yi am nañu président bu baax a baax a baax ku bëgg réew ku compétent ku mën a liggéey président Diomaye du tëdd avant trois heures du matin fajar lay xëy di liggéey ba guddi man su ma duggee bureau sax damay jékki-jékki ne xaaral mu dem wétali saa ndax xam naa ni wét na su ma duggee bureau palais gis nga dim saal bi mu toog fa moom dong ci table am sëg ma da ko saa waaye li métti na de day liggéey matin midi soir dossier yëpp la maîtriser laa jël ñi conseil des ministre amul dossier bu ko rëcc te sa principale préoccupation nee naa leen léegi dañuy jekki-jekki benn affaire am day mer ba futt non pas parce que mais day jàpp lii nu mu mënee am ci réew mi naka la nit mënee jël nangami milliards moom dong dem toog naka la nit mën a sàgganee lii naka la et chaque fois ce qui wala su yenn coow yi amee même suñu biir danaan mais ñii xanaa dañoo fàtte ni am nañu joxe seen bakkan pour que ñu changer réew mi kon loolu ku ko am mu wuteel lool ak liñ fi xamoon lool nee naa leen régime bi détournement xaalis du fi am wala ku ko def da ngaa xaru da ngaa xaru ku ko def demal nga def sa testament ba pare ndax li nga jël ay milliards la defe naa lu toll noonu di nga ko ci bi